en ce moment comme ni ma ko waxee Ousmane Sonko génn na ci otoom mi ngi nii taxaw ak avocat yi euh, parmi ñi mu taxawal yaa euh, ki nga xam ne moo di Jibi Gueye Ndiaye euh, ses avocats maître Bamba Cissé gis nga ki nga xamante ne moom mooy élément GIGN bi dama mujjee yéegal sama vitre ngir mën a jël ndax su ma ko yéegalul woon amaana mën naa am jafe-jafe lii daal mooy li nga xamante ne seetlu nañ ko fi président Ousmane Sonko ma nga nee ca gannaaw fi mu ne nii gars yi ñu lii daal mooy li nga xamante ne c'est malheureux euh, dans ce Sénégal lii daal mooy li nga xamante ne moo fi am président Ousmane Sonko ngi nii nag ngeen gis noonee mu wàcc ci oto bi di wax ak ñii nga xamante ne ñoom ñooy euh, ay avocat ak ay ñoñam amatul benn sécurité à nga xam ne ñoom ñooy waa amatul kenn koo xamante ne na wax moom moom ñuy di président Ousmane Sonko lii daal seetlu la bo xamantene am nañ ko fi seetlu la bo xamantene gis nañ ko heureusement ba sax nak ba sax nak ba sax nak mom president Ousmane Sonko mi ngi andak dal giñ ko xamé confiance giñ ko xamé sérénité bi ko xamé waaye dal ni ñu ko gisé ni mu jakarlo ñun ni président Ousmane Sonko mo nekk ni mo nekk ni jël ni di waxtaan ak ñi nga xamantene ñom ñoy ay ñom di waxtaan ak ñi nga xamantene ñom ñoy mooy avocat yi mi ngi sol yére bu weex koppati gam sol sol masque lii daal mooy situation bi fi am en ce moment nag amatul benn sécurité rapprochée boo xamante ne am na ko en ce moment moom président Ousmane Sonko mi ngi taxaw fi mu taxaw fi mu nii sax liñ ci am ak as néew mooy ay avocat am la taxawal di waxtaan ak ñoom lii daal mooy situation bi nga xamante ne gis nañ ne moo fi am.